yéeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf koy seet ba ca biir coronavirus bi umpalewul ak malakal mawti ndax li muy faat bari ci réew mi ubbi l'observateur ñeen fukki doomi aadama ak juróom-ñeent faatu nañu ci réew mi ci mbas mi fan yi ñu génn keroog samedi rek l'observateur nee nañu xamle nañu fukki bakkan ak ñett yu corona bi jël soleil national nañu du ci samedi ji rek waaye ci samedi ji ak ci gaaw bi maanaam week bi li ñu am ci journal bi tuddee Vox Populi nañu 19 décès 33 cas graves 573 cas corona US lii mooy bilan mbas mi ci week-end bi lise ko nañu moom koy wopp ji mi ngi fàtt lu mu mën di dem ci réew mi di gën di yokk di gën di law 19 décès ci benn week-end ñi coronavirus bi tëral ci réew mi ba ñu nekk ci loxoy docteur yi mu di malade yi nekk sous traitement yéen a kaay bi nee nañu seenub lim bu doon benn la yokk na ba ci fukk ak juróom benn ci ñeen fukki fan yi ñu génn Le Quotidien nañu génn gu ñu ci mball gi ndax guddi yi ñu toll service d'urgence yi dañoo boolee fat ak fot ak fes dell li ñu yenu àttanatuñ ko professeur Moussa Diarabé njiital assemblée nationale di ñu wax ci journal Le Quotidien ne dafa am ay cas amit ay cas li nekk ci centre de traitement yi ci ay cas sévère jege nañu ñetti téeméer waa SAMES dig syndicat gu jabote ay fajkat ci réew mi ñoom li ñu jàpp moo di communication buy déng déng bokk na ci li yokku joote ji docteur El Hadji Mamadou Ndiaye njiital prévention xëy di waxtaan ak waa Source ci mbas mi ak ci vaccin yi ñuy séntu docteur Ndiaye nee na bu weesoo programme élargi mën leen a denc denc ba war ñu wàcc wopp ji te war ci lenn lu mu waral ci réew mi jëral xët mu njëkk Sud Quotidien yéenekaay bi bind na ne Macky Sall ma ngay ñaq-ñaqal député yi ci assemblée nationale di leen accélérer ngir ñu wote nu mu gën a gaawe loi bi jëm ci état d'urgence beeg état de siège ak modification di jooye ne yéen ci bëgg andi loi boobee yéenekaay bi nee nañu tey ji ci suba ci la ci député réew mi di xëy réew mi Quotidien nañu nar Quotidien tegal ñu ci ne commissaire Boubacar Sadio nee na l'armée bi ñuy dugal ci couvre-feu bi du lu gën moom it samedi ba léegi ay mbokkam xamuñu fan la ko jant bi di tim dafa réer xaalis bu bari moo réer ca chambre de commerce bu Ndakaaru lii Quotidien mi joxe xibaar bi wax ñu ne réer gi waxin la rek waaye dañu ko sàkkal pexe xaalis la bopp ñaari téeméeri million ak juróom fukk ci audit bu ñu def ca chambre de commerce ca la mbir ya feeñe kuy làqatuy mandi ab piscine party ci almadi ci digg jamonoy état d'urgence gi nag sàngara jaak musique ba tuxum chicha yi lépp doon jàllaa ñoo bu ngor moo fa wàcc arrêté leen jàpp ci ñoom ñeen fukk ko tey ji ca lañ leen war a defeere